bébé. oui. xam nga mbër day am bàq. Hmm. gis nga li sol ni. waaw looloo may wan na yaa ngi ne mante la jolie ca laa jëm. ndax mante la jolie ay tukkuloo dafa ne dañ lay wayal. nan la eheja hawa sawodiyadi komi yetto yaade miɗe salmina njolam balejo mo joom baharo mbal a ñilleta ñille o ñilleta ñille ngara fini fala ñam ñune eliyo lele jawam leli ngara sara baye allah de ko wale la de fuuta was mantelageri ñoo am problème man li ma ci gën a metti mooy waaw mootuli dem seeti ko mu di ko làq ci ay ginnaaw canapé. canapé. fa la ko dugal canapé bu nekk ci salle ba. fa la dugal moo tulli ndax pàmbu. Eh, eh, nga eh, rafet ak yow. ah. xam nga ngéwél gi dafa yaatu. waaw. te xew mu rëy mii ku ne bëgg naa ànd ak gars yi dem. Hmm. ba tax na sama sama ma jox la. got them be sick. I like